jërë ngeen jëf mbokk ci yi ginnaaw bu ñu leen di yoo daal leen ak jàmm ci seen i actualité du jour ñu dooree ko ak mbiri euh, kii di AF ay atam toll ci 34 ans ak euh, ndaw si di yoo ci turu euh, moom mi lee am 28 ans nag ni ki démb lañ leen doon atte ci tribunal flagrant délit bu Dakar lañ leen di toppee du leen lu dul avortement clandestin moom mi nga xamante ne nag moom moo di AF professeur histoire géographie la dëkk ca diwaanu Benn Tali moom mi lee nag gannaaw moom sekkee kon ak maîtresse am bile daf ko daal di euh, ëmbaloon laata mu koy rek euh, wax mu dem euh, avorté ji ñoom ñaar ñii nag ñu nga xamante sax ci lii di TikTok. ba daal di développé seen relation bile nag moom mi nga xamante ni moom mooy waa ji kon bi ka ndaw si yëgalee ni rek dafa ëmb jamono ji daf kaa wax rek mu daal gaaw gaaw avorté boobu lépp ëmb daal na ba noppi am ñaari doom jamono ji moom ndaw si la nag ginnaaw bañ ko gëm looyee ni dinañ ko takk ci la daal di nangu lii di avortement bi ci noonee nag ñetti comprimé moom la daal di jël naan ko ca ëllëg sa moom waa ji di professeur bi daal di koy yóbbu kon ca diwaanu Castor joxaat ko yeneen comprimé yooyu comprimé nag gannaaw ba mu ko naanee ca la commencé rek di am ay nàcc nàcc keroog ci besu bésu cinq décembre bi ñu weesu ci suba si ci dañ koy yóbbu nag ci ab clinique muy sax daanu euh, ginnaaw bañ ko hospitalisé ñetti fan kon ci la ab situation daal di gën a empiré bañ transféré ko ci diwaanu Abass waa jii di AF gannaaw ba mu gisee ni nag traitement bi dafa cher muy jënd meek fayum garab gi lam def lu leen lu dul daal di abandonné euh, maîtresse sam euh, bile moom mi nga xamante ni nag moom moo di FMB euh, mer ba futu ginnaaw bi ko faram boobee di abandonné te mu diggoon ko dina ko takk ci la dem daal di koy porter plainte moom mi leen nag gannaaw bañ ko tegee loxo daal di nañ koy rek placer en garde à vue ko toppee rek complicité d'avortement moom nga xamante ne ndaw si itam ñu ngi koy toppee lii di avortement parquet bi nag dafa daal di sàkku ñu daal di juróom benn weeru kaso yoo xamante ni daf koy tëdd ràpp moom waa ji di AF lu jëm ca ndaw sa moom di wuyoo ci turu FMB juróom benn weeru kaso yoo xamante ni du ko tëdd moom la ñu sàkku ci moom ñoom ñaar ñi le nag ñu ngi leen fas yéene kon àtte 24 février bi ñu dëgmal ca diwaanu zone de captage nag daal di nañ fay jàpp benn trafiquant de drogue loolu ña ko def du ñenn ñu dul la policier commissariat bu Grand Yoff lu takkoo takku nag toll ci 47 kilogramme yamba moom lañ daal di rek euh, teg loxo ki nga xamante ne nag moom mooy trafiquant bi ñuy wax euh, Déba ci moom moomee lañu ko jëlee ca këram nekk ca diwaanu zone de captage moom mi leen nag euh, doomu Guinée la sax ñu ngi ko bett ci néegam kon nekk ci deuxième étage bu benn immeuble ak quantité boobu lépp yamba. ay atam toll ci 37 ans bu ñu sukkandikoo ci xibaar yi Seneweb dafa yàmmaa ji leen nag mu ngi ko jëloon def ko ci ay euh, sachet laatam ko boole ci ñaari mbuus daal di koy nëbb waaye ñi nga xamante ni ñoom ñooy euh, policiers yi kon nañ ba daal di koy euh, luggat yi gis ko moom mi nag gannaaw bañ ko placé garde à vue ba noppi daal di koy déglu moom mi nga xamante ni nee na ab menuisier ébéniste la lañu teg ci ak ndoddam daal dina koy nangu wax ni nag dealer la jamono ji kon ñu ngi ko téye foofee ca commissariat bu Grand Yoff Yoff di ko fas defeere déféré jëmale ci détention de chanvre indien. dellu si waat ba tey ci mbiri kii di Ndongo Gueye nekk nag moom jaaykatu or boobee ñu faat ni ki fan yi ñu génn ëpp ba tey nag ci enquête bi kenn nit rek moom lañ ci tegagul ay gët yaakaar ni moom moo ko def te muy wuyoo ci turu Bécam bu ñu dellu see nag ci journal bi di l'observateur li mu xëy fësal ko mooy enquête bi mu ngi gën di dëggal nag pist boobee jëmale ci moom mii Bastiam ndax kii di demee ca këram di ko réclamer lii di xaalis bi journal bi di xamle ne nag ñoom ñaar ñi ah, jot nañoo am ab ah, jàppante ci noonee nag moom Bass Thiam ci li ñu xamle ci ay xibaar ba tey dafa jël benn gaz asphyxiant daal di ko koy kon laata mu commencé di ko xoj ginnaaw ba gisee ni nag waa ji ñàkk na bakkanam ah, ci la jël benn pa njegenaay daal di koy ubbi jël coton ba nekk ca biir saañ lii di ay bakkenam nga xamante ni nag daf doon génnee deret ci boom ca nopp noppee nag dafa jël benn drap daal ci lëmës lii di néew bi laata mu ko tëj kon ci néegam récupéré lii di téléphone portable kon bu euh, Ndongo Gueye ci bam ca noppee nag dafa dem ca diwaanu marché caaro yi euh, foofee la jëndee ay euh, sac plastique laata mu cee dugal kon néew bi jël lii téléphone portable bi sànni ko ca plage bu Malibu moom mi nag di bee caam journal bi di nettali ba tey ba mu dellu see ca këram dafa tëju ca néegam daal di jël kon lii di sachet plastique yooyu nga xamante ni ci la def euh, néew ba euh, xaar ba guddi jot kon mu daal di koy yóbbu ci biir oto bi nga xamante ni moom mooy oto Ndongo Gueye laata mu koy gaare kon foofee ca diwaanu euh, muy fañ ko fekk jamono ji nag moom ba tey ñu ngi ko téye di ko fas yéene defeere sax nag bu moyul ni ki lundi mu janook procureur bi booba tey ci biir enquête bi moom mooy kenn ki nga xamante ni kon moom lañ teg ay gët te jàpp ni moom moo faat kii di Ndongo Gueye ginnaaw bi mu ko amee ab xaalis te fayu ko ko animateur bi léegi Boubacar Diallo Diallo ñu gën koo xam ci Dj Boubs jamono ji nag ci tiis la nekk moom Boubacar Diallo mile niki démb ci guddi kon la ñàkk kii di wajuram bu góor di Papa Abdourahmane Diallo moom animateur groupe E-Media bi sax di ko yëgle ci page Facebookam di wax ni nag lii di enterrement bi ñu ngi ko fas yéene amal kon niki bisub tey foofee ca cimetière bu Yoff ñu di ko ñaanal yàlla yërëm ko te xaaree ko àjjanay firdawsi footballeur bi di Samuel Eto'o jamono ji nag ak coow moo daal di koy euh, topp loolee ginnaaw benn xale bu jigéen bu am 22 ans boo xam ne nag nee nañ doomam la te nangu ko reconnaître moom Samuel Eto'o mii nag tribunal bu Madrid daf ko daal di sax reconnaître coupable ci li mu mësta reconnaître euh, doom joojule ak itam mësul jàppale yaayam financièrement ci nu mu ko yare moom xale bu jigéen ba ca boppam nag mu ngi juddu ci atum 1999 ci li ñu xamle. lu jëm ci yaayam nag ak footballeur bii di Samuel Eto'o ñu ngi xamante woon kon atub 1997 ci benn discothèque fekk boobule jamono. Samuel Eto'o mu ngi évoluer fu ñuy wax Leganés moom mi nga xamante ne nag moom mooy yaayu xale ba kon ay yëgaloon na footballeur bi di ko xamal ne nag dafa ëmb te moom mooy bàyyi waa xale ba waaye nee na jéem naa communiquer ak moom ba sonn waaye wuyootul woon ay appel téléphone am wala ay courriel yu mu ko daan envoyé. waaye moom ndaw si leen nag daal di ne rek témoigner rax si doole indi ay preuve biologique jox ko ñi nga xamante ni ñoom ñooy euh, juge yi ba jamono jile tribunal bu Madrid yaay ji ak doomam ñoom la jox dëgg waral ki nga xamante ne moom mooy Samuel Eto'o dañ koo daan ngir mu a fay lu toll ci 1400 euros weer bu ki nga ni kon moom mooy yaayu xale bi ngir euh, lu mu koy euh, toppatoowee kii di mi daal di cuun nag nekk doom ci dem si yàlla Cheikh Béthio ak ki nga xamante moom mooy maire bu Ngathie Nawde nekk coordonnatrice itam programme modernisation gestion des marchés foofee ca ministère commerce ñu koy wax yaay faatu Diagne ñoom ñi daal nañu fas seenub sëy yëf yi kon ñu ngi ko tàkk ni ki dimanche bi ñu weesu foofee ca Dagga nekk ci commune bu Ngathie Nawde nga xamante ni moom yaay Fatou Diagne fa la juddoo ci teewaayu kon seen ñaari njaboot yi ci lañ takkee boobu lépp sëy muy doom ci Cheikh Béthio Thioune Mbiradi Thioune ak ki nga xamante ni moom mooy yaay Fatou Diagne nekk jamono ji kon maire bi jiite gàcci naw de mbokk internet yi fi lañu yam ak yéen tey ci seeni actualité du jour jox leen dig daje ëllëg ak jàmm ci yeneen xibaar jaa ngeen jëf